ba jóge fa dem gànnaar ba jóge gànnaar ñëw ci yéen jolof bi ñëwee ci yéen jolof ca at mu njëkk ma ca la yónnee woolu maam Faty Issa bi mu ko wooloo moom dafa wax ne maam Thierno Ibrahima nañ ma waajal ndax bu ma demee du ma dellu si ndax xam naa ne la ma digaloon rek la may defal kon li sëñ bay wax léegi ni moom dong la sëñ Tuubaa mas a dugal ci bàmmeel dafa am leneen sax lu ci xew yoo xam ne sëñ Tuubaa moom rek la ko defal ndax keroog bi soxna si liggéey muy bisub ajjuma tombeeg le 27 décembre 1907 ca suba ga sëñ bi dafa woo sëñ am sotu jaxate te lii sëñ Omar jaxate doomi sëñ am sotu jaxate ñu moo ko nettali te mu ngi dund nee na sëñ am sotoo ko nettali daf ko woo jël ab kaamil xaaj ko ne ko jàngal benn xaaj bi ma jàng benn xaaj bi sëñ Tuubaa jàng benn xaaj bi sëñ am sotu jaxate jàng benn xaaj bi ñu ñaanal son faris mu doolu woo sëñ Mourou Moustapha nag ne ko nag ma wutal fukk ak ñaar ñu man alxuraan ñu wàcceel ma ab kaamil sëñ Tuubaa moo ko jullee dugg ci bàmmeel bi nungu ko booba maam yi sëñ Muhyiddin mii di sëñ Madoune Penda ndax sëñ Madoune Penda moom ak euh, soxna sëñ Madoune Penda ndumbi xale mi ko jur ak soxna Faati sa ñu bokk ndey ak baay sëñ Madoune moom moo jur soxna Faati Madoune soxna Fatima Dund sëñ Cheikh Awa Balla bi leen ko joxoon mooy waajuru soxna Sumda sëñ ma dund benn moomee nag moo doon xalaat ci mu xelam ne soxna si sëñ bi da koo sànni ndax fi mu ko denc da fiy jugee te bu kenn dootu xàmmee barab bi sëñ koy tontu ci xel daal di wax ne soxna si sànniwuma ko sànniwuma topp ma ci moom baax topp ma ci moom aada li ma topp ci moom mooy dogalu bi yàlla fii ñu ko denc. danañ dem ba ay jëmmi jamono ay njabootam ñooy del si di ko di ko wéttali kon maam Fatou Issa li mu am sëñ bi kenn amu ko ci 1907 1908 soxna Diop Mbacke feeñ jamono mu mag bi tuddee ko maam Fatou Issa moomee nga xam ne nag moom la maam jaara de moom la sëñ bi doon ne woon soxna jaar dénk ko maam Fatou Issa sëñ bi moo woo soxna astu Mbacke Kajoor ndax moo leen mag fuuf moo ko soxna Fatou tuuti lañ magantee Fatima dund moomu moom la woolu laaj bi ñu génne mbalaat bi ñu leewu ci soxna si ñu tudde ko maam Fatou Isa sëñ bi jël mbalaan bi jox ko waajuru soxna Jóob Mbàkke soxna Fatou tuuti ne ko xam naa maamam dana ci kontaan xam nag maamam ju wax waaye dana ko lii de maamam dana ci kontaan ndax ci maamam soxna jaar la jóge mu daal di jël soxna si tudde ko soxna Fatou Isa maa ngi jëlee ci soxna Jóob Njaay maam Jóob Njaay doomi sëñ Mat Lamin Njaay xewar la waajur sëñ Ebo mii mu ko leen ko tuddee muy wax ne bu ma sañoon ñu ma tuddal nañ koy wax soxna Diop ndax sama tur wi bu ko sëñ masaan dégg ci kër gi day ree turu soxna jóob bi kon sëriñ bi ku toog ku fonkoon soxna Fatou Issa la ku ko joxoon cër la nit mënta weesu nga faatu mu dugg ci biir bàmmeel nangu la foofu lees mën a yem ba ca dooleeku am doom tuddatu ko te ñaar yooyu benn bu ci ne sëñ Tuubaa defal na ko maam Fatou Issa kon nun ñi nga xam ne nun la yàlla féetalee loolu yi nañ ko jàpp te te te xar ci suñu tànk tubéy te xam ne dara gënta damaa jëlale sëriñ bi ndax sëriñ bi ci boppam dafa dénkoon sëñ Basiru ne ko maa ngi lay dénk nga sàmmal ma sama kóllëre ak njaboot soxna Faati loolu seen Basiru sëñ bi ko dénkoon kon ginnaaw yàlla def na loolu yi nun nu am ko kon dañ ko war a téye te jàpp ko te xam ne ko am lu kenn amul dañ koy téye jàppee ko nag kenn jàppewul dama fàtte si lii seen seen mbay wax léegi lu fu lu ne da koo defal seen Tuubaa lu ne defal na ko seen Tuubaa fu ba sa ma sa ci maam fàtte dem te bu fa demee rek mu daal di nañ ko jàpp te xam ne ku fa dem da bokk ci lës ñi seen Tuubaa wax naan ñooy sama njaboot bokk ci njaboot seen Tuubaa doy na sëkk te seen Tuubaa moo ko waxal bopp moo waxoon ne fii bu fi wéet danañ dem ba jëmmi jamono ay njabootam ñooy dikk di ko wéddi si kon njabootam boo weesuwul ku dul ñun ñii kon kenn ku ne ci ñun na ca góor góorgóorlu te xar ci tànk tubaya te xam ne sëñ Mourou Awa Balla de am na lu mu ci waxoon ndax sëñ Fallou le 12 juin 1966 la fa njëkk a dem bis ba dellusi mu delluwaat ba bis ba dellusiwaatee di le 26 sëñ Mourou Awa Balla dem ba mu demee dafa wax fii de lépp dana fi am booba mi ngi. toog ci séng gi ci wetu barab bu maam Faati takk ak ndomba ak baat léeg-léeg mu jàpp ci téere bi ci ndomba gi muy téere bu boobu ñuy gis daal di wax ne ah dégg ngaa fii lépp dana fi am te boobu ba mu koy wax gëm ko yombutoon ndax boobu ci am fa dara tey nag lépp am na fa kon nag ku bëgg ku bëgg ku bëgg ca loolee boo ci defee rek danga ko am ndax ñoom seen wax bal bu takk la da fexe ba def ci sa dara rek bu takkee tàkkaale la te sëñ Mourou ba mu koy wax 1966 la loolu la ko sëñ le le 26 juin 1966 la sëñ Mourou waxoon loolu tey ku fa dem xam ne la mu waxoon lépp dikk na kon nag moo ngi sant mboolem ko xam ne jóge daal Daaru mu te loolu sëñ bi dana ñëw ci kanam dañ doon tax li xaat ci li sëñ Mbaye doon doon doon wax léegi rek ci soxna Fatisa ñu xam ne daal ki gën a ki njëkk ki gën a gëm Serigne Touba ki njëkk gëm Serigne Touba mooy maam Fatisa ki gën a gëm Serigne Touba mooy maam ba muy gëm sëñ Touba booba sëñ bi mi ngi ci ginnaaw soxna jaar ñuy root baag bi tàbbi ci biir sëñ bi génneel leen ko ñu tëral ko ci kaw lal bi man sax maa ngi dégg ci sëñ Fallou te loolu am na ñu ko dégg ci jotaay bi mu wax ne booba soxna si sëñ bi mu ngi ci ginnaaw Mame Fatis keroog la Mame Fatis jébbalu sëñ Touba kon moo ko njëkk a gëm ko gën moo ko gën a gëm mooy bi xibaar bi amee te ñëpp gëm ko moom moo ko gëmul moo gën a gëm ñëpp. te moom doomu moo ko gëmutoon Sidna Abubakar Sadiq loolu moo ko mayoon luñ wax ci yonent bi alayhi salaatu wasalaam mooy dëggal ba yonent bi ñu ne ko sa ji léegi am ñu neexul ndax ni bi jóge na fi dem na Baytul Maqdis dem na ba ca suñu borom dellu guddi gi leen moo ko wax ñu ne ko waaw mën kon gëm ak dëggal dañoo bokk maam Faty Issa dafa gëm sëñ Tuubaa dëggal sëñ Tuubaa sëñ Tuubaa may ko lu mayut kenn kon ñun ñëpp nan maase ci taxaw ci nii ci sëñ maam Thierno taxawee dafa kër at mu jot muy def communiqué di wax njabootam yëpp nañ fa dem màggali ñëpp nañ maase ci roy ko te def loolu te xam ni ku ko def doo ko réccu ndax bokk ci njabootu sëñ Tuubaa doy na ku fa dem ci njabootu sëñ Tuubaa nga bokk te sëñ Tuubaa ko waxal boppam kon dañuy wax sëñ Mouhidine mi nga xam ne mooy bëgg a wax te moom dafa am ñaari mu am ci maam Fatis bu njëkk ba mooy mooy ñaari maamam yëpp maam Fatis aale seen maam ndax soxna Aminta Mbàkke moo jur soxna Aminta Lo mu jur soxna Mariam mu jur soxna Ami sëñ Cheikh Awa Balla soxna fa maam Thierno Birahim maam kon ñaari yoon la ci am kon ñoo koy jox kàddu gi mu àggale di ci des waaleykum salaam wa rahmatullaahi taala wa barakaatu. ñu nuyu mbokk julli yëpp xanaa wax ji da ku dalal ay gan mënoo cee ñàkk sànni kàddu waaye waxtaan wi man na sëkk. te xam na nu sëñ Mbay Géey li taxoon ñu taamu ko dafa mel ni dundam gépp ci gëstu borom Daaru mus si ak lu aju ci moom soxna Faat Isa moo ci ëpp ba ñu tuddee ko liggéeyaa kanu borom daaru kon ku buñ ko waxtaanloo ci soxna si li arab yi wax jox nga xalaga ka ko yatoon dëkkal nga ci kër gi ki ko tabax mooy jox nañ ko kuñ ko war a jox la xam naa waxtu wee ko tënk sax waaye bu waxtu yaatu woon dana nu waxal ci soxna si lu yéeme li mu wax doy na sëkk kon nag dañ koy sant bu baax a baax a baax di ko ñaanal suñu borom boole nu fan wu gudd ak wér te nangu liggéey bi muy liggéey sunu borom nangul nu sunu taalu bi te nangul liggéey bi li muy liggéeyal borom daaru sunu borom nangu ko boroom daaru musi nangu ko li mu wax soxna Faati sa day koo xam ni jamono ya muy liggéeyal sëriñ Touba booba sëriñ bi kenn da koo xamul ci saahir ndax sëriñ bi bi mu feeñee diirub li maam Mor Anta Sali di dund sëriñ Touba nanguwuta wane dara lu du topp ci maam Mor rek doon ab taalibe mësta nangoo feeñal dara noonu ko waxee nag ñu usmaan wax ko léegi nga xam ni ni ñu ko waxe dañ doon root moo soxna jaara seen baat tàbbi ca teen ba sëriñ bi booba ñi ngi ko boot moom muy xale bu toll ci boot ci saahir mu ni bu dee du ngeen ma feeñal de ma génneel leen ko xam na soxna jaar soxna jaaro ni ko ki ma àndalit wóolu naa ko mu tàllal loxoom génneel leen baag ba ne boobee la soxna faat yi sa fas jébbalu ci sëriñ Touba kon kooka xam nga bu ñuy wax jébbalu moom kenn limaaliwu ko lii mu waxit sëriñ saaliwu moom wax na ko muy wax ju wér tool moom waxi sëñ Tuubaa rek waaye sëñ Saaliw wax na ni mboolem murid yi soxna Faatu Isa moo ci njëkk a gëm sëñtuwaa moo ci gën a gëm sëñ kon loolu day na sëkk jamono yooye sëriñ Tuubaa lu ko jar àndal ak borom daaru ak sëñ Masamba Jóob ñu wër réew mépp mënuñoo ñett am ñetti dërëm te muy soxla su ko ñor ba ñu jël see pataar ñu di leen reetaan soxna Faati Isa génne ñetti dërëm jox ko mu faj soxlaam loolu rek doy na ab liggéey loolu dong doyoon na ab liggéey niki noonu soxna si ñu njëkk a jox sëriñ bi muy soxna jàtture jur taawub sëriñ Touba bañ koy jox ni ko waxee kaamil bu sëñ Touba bind lañ yor di ko jaay wër wër mënuñoo gis ku jënd kaamil bi bañ delsee soxna faati sa joxaat ko lañ ca def kon liggéey yu mel noonu loolu moo mën a tutaam jamono yuñ ko doon liggéey ak circonstance yi loolu moo mën a tutaam moo tax lam liggéeyal Sëñ Tuubaa kenn mënu koo jot kon soxna Fatou Isa ko am ku bokk borom daaru muuti war ngaa fonk bisam war nga koo fonk war ngaa fonk céyeen ceyeen googu nga xam ni sëñ tubaa ko fa dencal boppam sëñtuwaa dëkk fa juróomi at loolu ñu wax ne bi muy waaj di jóge fa di ñëw njaareem la laaj mag ñi ñaata kaamil ngeen fi jàng ñu wax ko ni bari na lool mu ni moom ci làmb ñu boppam jàng na fa junni kaamil kon booba barab eh, dem fa jar na sol dàlli weñ di ko doxe ba mu rab kon nañu gën a fonk céyeen gën a fonk soxna soosu te ni ko sëñ bay waxeet noonu maanaa sëriñ Tuubaa wax borom daaru ni ko loo mën a gis yaag ñi la yaakaar ci àdduna añub liggéeyub soxna Faati Isa waaye yow duma la fay ci àdduna àllaaxira laa lay soog a fay kon nun li nuy xeewloo lépp liggéeyub soxna Faty kon war na noo takkuwaat ci moom kon ñu ngi ciy soññi ñëpp di ñaanal sunu waajur wa di sunu nijaay Serigne Fadilou sa Dieye mi yàlla dogal mu feeñal barab ba def ci pastéef ba céyeen ñépp xam ko sunu boroom dolli ko ay leer ak yërmande dolli ko ngërëmal yàlla te njabootam gi mu fi bàyyi tam suñu boroom teg ci barke ak ñëpp ñiy taxaw ci yéen ndax ni ko suñu Ousmane waxee ñun suñu lépp daa dellu ci soxna Faati sa kon ku ciy liggéeyal suñu fàllu daana ko wax yéen la ñuy liggéeyal kon ñu ngi leen di sant bu baax nag di soññi waa dëkk bi ak taalibe bi yépp ñu góor góorluwaat ci Thiéyène